alaykoum wa rahmatullah maa ngi tudd Ismaïla Kelly euh, Mauritanien la Mauritanie la jógee donc je représente une ONG de nommé qui ONG Action et par rapport à atelier bu tey bu mekk xamanteni c'est pour les jeunes donc échange bo xamanteni dafa bax pour que chaque euh, pays arrive ñu xol la moy sunu défi la moy sunu opportunité bo xamanteni qu'on puisse vraiment avancer ensemble le moy loolu objectif de l'atelier bi. légui yéen def ngeen li nga xamante moy session bi ngeen jotta def tay

gis nañu initiative yi ñu ciy bari Mali comme Burkina Faso né duñu projet ñu ñuy proposer ay ça peut servir de non seulement nous les jeunes c'est une opportunité de xamanteni pour nous faire avancer par rapport à cet atelier là. d'accord sa dernier mot. waaw sama dernier mot ma ngi remercier euh, tout le monde plus particulièrement les Sénégalais bravo cette organisation ce qui m'a marqué la première étape l'organisation était extraordinaire. Et Mangléné, du centre de je dis chapeau aussi au Sénégalais pour ce forum extraordinaire. Jeff.